waxee euh, jox ko réponse ci ci ci le taux d'endettement bi nga xam ne dépassé nañ la norme communautaire muy pour cent du PIB dépassé nañ 75 pour cent beneen bi mu koy def dafa wax ne dañoo waroon yegg taux de croissance à deux chiffres en 2023 parce que ñu ngi ko sukkandiku woon ci euh, les les les hydrocarbures mooy ay Woodside ak yooyu xam nga waa APR élément de langage moo leen sonal c'est que dañoo jàppewul sénégalais ay nante est-ce que xam nga ne les recettes fiscales qui sont qui étaient prévues dans dans dans la production de ces hydrocarbures xam nga ñaata la ma yaase 51 milliards. 51 milliards mooy. 51 mooy waxu la yow li nga wax nii mooy lan. non man je te parle de 51 milliards 51 par jour wala. non non année. 51 milliards mooy waxu lan 51 man li ma la wax da ngay dem DPE. loolu asaka la laas yow tamit 51 milliards xam nga boo leen dégloo ñuy pëndal nii da ngay jàpp ne ay 1000 milliards ñooy jóge ci hydrocarbures yi ci 2023 dañuy pëndal. 50 waaye déglu ma wax la man non man déglu ma. bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko mu euh, déroulé parce que laas man li nga wax nii man je suis très précis et eh man la ne boo demee document de de programmation budgétaire bu ministère des des finances nga dem DPE DPE Moustapha Ba bi moo nekkoon le directeur du budget moom moo def ci document présenté ko à l'Assemblée nationale premier ministre ba muy def déclaration de politique générale li mu wax devant l'Assemblée et devant tout le peuple sénégalais mooy bu euh, production de baril yi ñuy def c'est des recettes fiscales de cinquante et un Boun Abdallah Dionne non non Amadou Ba je te parle de Amadou Ba non da nga ni moo nekkoon directeur du budget dama ne directeur du budget ba mu nekkee directeur du budget. waaw Moussa Ba waaw moo moo moo préparé le document de programmation budgétaire. après nekk ministre des après nekk ministère des finances waaw. Ba nekk premier ministre. ñoom ñaar ñoo dem assemblée nationale moom bu bokk ci équipe premier ministre ñuy wax askan bi premier ministre di ko wax mooy c'est 51 milliards qui étaient prévus en terme de recettes fiscales par rapport à ces inf euh, euh, ces c'est-à-dire c'est une goutte dans la mer loolu mënul développer Sénégal c'est 51 milliards comprendre la douane la douane nous donne plus de 1000 milliards. c'est-à-dire laas li nga wax mënut a nekk li ma lay wax naa xam nga après après il faut que ñu xoolaat loolu. Ah, quoi léegi d'accord wax nii sax du ko dindi man je te parle d'un document officiel. le pétrole bi ci lañ yaakaar teg di nga may ay 51 milliards en 2023 laa la wax. je te parle des chiffres waxuma la durant toute la production je te parle de de de chiffres annuels ce qui ñoom ci liñ sukkandiku ba naan dañu am. Euh, euh, taux de croissance à deux chiffres ajout bi c'était que de cinquante et un milliards cinquante et un milliards du tous. comprendre nga kay loolu kay azaka la ah, xam nañ ko man kay damay sikki saaka ci li ngay wax. non li may li may wax mun nga am nga droit sikki saaka ci mais c'est un doc ça provient d'un document officiel boo demee site de ministère euh, de des finances di nga ko gis boo demee direction du budget di nga ko gis boo demee page yu APR Benno Bokk Yaakaar seen groupe y li ñu ciy wax da ko ciy gis laas ay waxam kenn du ko yàq. déglu ma expliquer rek dama la ne. léegi kii yëpp kon ne waaw kon ne kon ne kon ne euh, beneen bi. 51 milliards en une euh, li muy exploite ci pétrole ci gaz. lépp hydrocarbures bu ñu ko boolee 51 milliards donc la ci am il faut d'abord fiscalité bi ngay wax nga préciser le nombre de barils de gaz et le nombre de barils de GNL muy gaz liquéfié naturel bi lan lay génnee. loolu il faut nga leer mais boo ñëwee taxaw na cinquante milliards c'est comme si que lépp lu ñu am ci hydrocarbure cinquante et un lañ ci am c'est n'importe quoi là il faut préciser non dama lay wax Mayacine faut préciser bu ma duggee dans un bu ma duggee dans un débat technique concernant les hydrocarbures doo ci génn léegi